boobee ba léegi mot na ay semaine gannaaw ba ñuy waxtaanaat lu jëm ci wàllum anam bi ñu joxe licence de pêche yi bato yi nga xamante ne ñoo gane si fii ci Sénégal ñu koy waxtaanee fu nekk ñi ci raw ñoo di nappkat yi nga xamante ne ñooñu la ñu fekk foofee ci yaraax ak Hann Bel-Air ñi nga xamante ne mer ba fut la ñu def ci loolee. ñoo gën a tiit parce que li tax ñu gën tiit mooy dañu gis tey ji euh, ku mel ni suñu ministre de la pêche ñu gis ñuy négocier waat ay contrat de pêche. yoo xam ne ñu ngi koy bëgg a waat fii si Sénégal actuellement nag moo yëpp ngi bokk di ci waxtaan mu jaral ñu dara nag parce que dañu bëgg sonn te ñun amuñu lu ñun suñu réew mënuñoo dem feneen wala boog particulièrement ñu si ëpp bëgguñu génn réew mi dem feneen mais dem na yoo xam ne dañuy di ko def mais gënalu leen am na yoo xam jaay seeni matériel pour dugg ci gaal yi di dem bitim réew loolu gënalu ñun. bépp accord de pêche bu ñu ko signé neex na Macky neex na ministre bi nga xam ne moom la fa teg amul. fii au niveau de Hann Bel-Air ministre euh, depuis ci Alioune Ndoye bi mu fi ñëwee ba jógee fi ba kii remplacé ko gisaguma fenn ñun pêcheurs yi fi ñu toogee moom table ci table di waxtaan amul kon ñoom faale wuñu ñu xam nga dañuy dugg ci benn secteur tey bu ñu duggee aan ñu ne pêche la ñuy waxtaan dañuy xool ki nga xam ne du pêcheur xam nga tey mënoo di waxtaan ak pêche bi moo mareyeur bi mbaa baana maa ne moom jënteer lay xaar bu dem jaay. e nakaru trop ñun les femmes pêcheurs ak les jeunes pêcheurs ñu ngi koy nakaru trop parce que géej gi li tax mënatuñu am jën. suñu géej gi ñu jaay boto yi di napp di manque ni boto yi di nappee di manque jën wi ak euh, filatone yi ni ñuy nappee c'est pas la même chose parce que mënatuñu jàpp dara ndax suñu géej gi ñu jaay ñu koy nakaru trop suñu mënoon sarax bàyyi suñu géej gi ñu jaay jën yi di màgg naka noone ñu jàpp ni licence de pêche yooyu nga xamante ne ñu ngi koy jox ay bateau yi jóge bitim réew mën na sax indi ay jafe-jafe ci secteur napp bi fii ci Sénégal. jafe-jafe yi nga xamante ne tamit tey am nañ ko ci secteur pêche bi maanaam mooy euh, maanaam jën boo xam ne gisatuñ ko d'abord maanaam mu dem ba tey suñu métier actuellement dafa menacé wu euh, jën bi jafe na. actuellement tamit boo xoolee liggéeyu lu mel ne liggéeyum pétrole bi nga xamante ne tamit état ñu ngi koy dëgmal di ko commencé mu nekk leneen loo xam ne dafay delloo ko si kaw mool loo xam ne daf leen impacté ñu am actuellement mooy jën bu ñàkk tey loolu moom moo waral tey jii mbëkk mi ngay gis muy am. torop suñu mënoon sarax bàyyi suñu géej gi ñuy jaay jën yi di màgg ñu di si jariñu di si suturlu suñu njaboot di si suturlu ñi ñuy dem place di jënd dafa fekk ay jën dina baax torop dinañu neex mais da ngay dem place jën doo gis loo jënd gannaaw jafe-jafe yi nga xamante ne yooyu la ñu jot lim nappkat yi di wax it daanaka amuñu ay mesures d'accompagnement ci seeni secteur napp bi. gisaguma fi benn mesure d'accompagnement bu état def fii ci Sénégal ci au niveau des pêcheurs mu nekk loo xam ne dafa jëriñ pêcheurs yi moo xam ci seen mbaali la moo xam ci seen gaali la moo xam ci seen machine la moo xam ci yére bi ñuy sol gis nga yére bi ñuy sol sax di ko yóbbu géej te di ko ñàkkal fayda état mu ñu koy jaay soixante-quinze mille de travail bu ñàkk fayda boobu ngay gis fukki junni ak juróom lañ koy jëndee. kon nga xam ne amul loo xamante ne état daf koy yombal euh, lan mooli xam nga tey ji jën boo amoon jën jafe na jafe ga nga xamante ne tey ji gaal yi ngay gis fii gaal bu ci tëmb yóbbuwoo sondeur doo mbaal te loolu amul woon léegi sondeur la ñuy liggéey ci loolee jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi tukkee ci wàllum licence de pêche yu ñu séddale ci anam bu teggi newul tax na ba bateau étranger yi ak nappkat yi nekk fii ci Sénégal di soobu ci wàllum concurrence bi nga xamante ne ay jeexital kese la leen di jural. dafay am parce que dañuy des fois dañuy am am ay affrontement ci géej ñoom ñu lay roccoti ay ndox mu tàng dañuy sottiwaate ay ndox mu tàng lu ne phénomène ma yéen ko gis am na ñu fi sottiwoon essence sax. ci ay bateau chinois yoo xam ne am nañu fi defoon gaañ gaañoon gaañ yu metti yoo xam ne dañoo dañoon ci am problème bu mel noonu parce que tey jii bu ñu ñëwee yor gaal gu ndaw ñu mbaal dafa dem ba ñoom faalawuñ ñu bu ñu mbaalee suñu kaw mbaal la jaar dem te jii man deux fois trois fois topp nañ bateau war na suñu mbaal ñu topp ko au niveau de l'État topp ko ci voie juridique pour dem ci yoon pour yoon teg ko ay daan mu rembourser ñu mais au fur mesure day mujj niil mbir mi ni mel mi nga xamante ne nappkat yi ñaawlu nañ ko ba fu ñaawlu yem moo tax it ba fii ci Sénégal ñu daal di gis ay ndaw ñi jël gaal yi di wutali Barça wala Barça. suñu bàyyee géej gi ñuy jaay bu gaal yi demee jàpp jën yëpp gaalu topp gaalu mbaal yëpp sompaat ba fees mala yebay tas bii yëpp si ba fees gars yi duñ dem Espagne ndax chaque jour ngay naru ay cent mille cent cinquante mille di ko naru si jën wi nga ne Espagne bu ñëwee nga wecci leen. mais mënatul am. ñu benn autorité boo xamante ne tey yaa ngi ci état bi boo xam ne wax nañ ne teg nga sa tànk ci dëkk yooyu pour dem xool masawu leen masawu seeni waajur jéem a waxtaan ak ñoom tamit pour xam yan lan moo tax lan moo tax ñuy dem ci clandestin lan moo tax. parce que bu demee ba waajur bi di influencer doomam pour mu dem clandestin mais am na lu tax parce que kenn ku nekk da nga souhaité sa doom nga yar ko fa war a yaree jàngal ko école tàggat ko si métier bu mu a doon bu ëllëgee mu jariñ la mais boo demee ba na. àgg comme ça na bañ àgg kon yaa problème. ci loole ñu daal di xalaat it lan moo tax mënuñoo bàyyi géej gi mu mën a noppalu li ñu duppee repos biologique ñoom nappkat yi le di wax ni loolee mënta amtu fii ci senegal ndax ñu bëri ñi nga xamante ne ñu ngi yëngu ci wàll wi lii rek la am ngir dundal seeni jaboot. xam nga buñ ñu nee repos nga tëj géej trois mois moo di amuñu benn garantie. amuñu lenn loo xamante ne yaakaar nañ ko ne lii moom ci lañuy yore seeni kër duñ ko duñ ko duñ ko nangu tey te duñ ko nangu suba ndax ku ci nekk ci li ngay dund ci ci loolu nga yaakaar ndax état bi amul benn repos bu ñuy def chaque weer dañuy jox seen saleer salaire yóbbu dundali seen doom fay seen i njàng dimbali seen njaboot kon moo ne nag ci li ñuy dund moom la ñuy suturloo ci loolu la ñu yaakaar xel xalaatul ñuy tëj géej ay trois mois moo di toog di sommet ndax état amul benn mesure d'accompagnement bu muy jëfal moom parce que ñun ñun acteur en activité yi am nañ ci responsable mais ba mooy boo boo xoolee suñu responsabilité ci napp bi ak responsabilité boto boto pes yi contrat boto contrat euh, boto contrat yi nga xam ne dañ leen di ay contrat am na différence bu bëri sax bu bëri parce que ñun jaar nañ ci boto yi navigué nañ tey jii exemple boto bi bu bu mbaalee ba tuur jënam ci kaw gaal gi maanaam mën na si tànn tànn lu ma juróom-ñaari espèces yu mu soxla tey bu mbaaloon une tone boo moytuwul 100 kilos lay jël wala 150 kilos wala 200 kilos 700 kilos yëpp lu muy tuuraat te loolu ay jën la yoo xam ne dafay dund bakkan la yor xëy na ñun am nañ ci part responsable mais suñu part responsable mooy maanaam dañu amul ay mesures d'accompagnement. bateau yi jógee bitim réew daanaka li ñuy indi ci ay jeexital mën na tax ba napp bi fii ci Sénégal nërmeelu ci anam bu jéggi dayoo. yenn bateau pirate yi nga xam ne ñoom ñoo fiy dugg nu leen neex la ñuy def ci suñu géej daanaka li ñuy yàq moo ëpp li ñuy defar tey boo xoolee ñun instant bi pêche nocturne bi dañ ko tëj pendant trois mois PCR duñ dem te ba xool pendant mois fii ba Cap Skirring dañ ko tëj mais del xool PCR traditionnel ñu tëjal leen géej gi pendant six mois te bu ñuy tëj pour bato yi trois mois lañ koy tëj te bato yi fu ñu nappee une daanaka li mu wax rek cent kilo wala deux cent kilos lañ ci soxla li ci des dañ koy tuur mu dee jën wu sew bi nga xamante ne lañ doon tere te jii buñ ko teree gaalu loo cay tere nañ leen ko mais pourtant bato yi ay toni toni lañ ciy napp ndax moom bu demee ñi moom la ñuy mee béton ñii moom la ñuy defaree sardine bu xam ne bu sew bi la te jën woo moo war a reproduire pour ñu mën a am yeneen espèces yoo xamante ne bu ñëwee fi nañ ci loolee fii ci Sénégal suñu buggee saafaral lépp lu jëm ci wàllum problème mi nga xamante ne ñu ngi koy am ci géej gi waaye it saafaral lii di émigration clandestine ak it ñu am ay génn yu bëri il faut nguur gi arrêté jox ay licence de pêche bateau yi nga xamante ne ñoom ñoo di ganesi ci Sénégal waaye it napp bu tegginewul bi nga xamante ne ñu ngi koy amal ci géej gi